ay ca jërë ngeen jëf mbokk internet yu ñuy déglu à travers partout dans le monde rawatina yéen ñi chargé la chaîne leader surtout mag bi ñuy wax Galsen People te nag macha allah euh, mën naa ne dañoo ñëw jël ci ki nga xamante ne euh, yàlla dégg na ko xam-xam ju bëri euh, mën naa ne na fi la dernière fois mais sénégalais Nak, ak ñi nga xamante ne ko yàgg suivre ñoo ma Moussa demal nga jëlal ñu Serigne Mor Ndiaye mu Serigne Fallou parce que macha

loo xamante bu ko waxee ragal naa ñu bëri taf seen gémmiñ avant loolu aussi dañu waxtaan si wàllum xam-xam dañu waxtaan si ay mbir yu bees yoo xamante ne yor na ak aussi benn mbir boo xamante ne sénégalais yëpp ñu koy waxtaanee après si biir émission bi dinaa ko poser question incha sëñ bi nuyu naa la. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax kenn ku ne ci turam ak santam. te di feddali suñu kóol rek yéen bu baax a baax. Hmm. di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér. di ko ñaanal kilifa diine yëpp. moo xam Laayeen moo xam Ñaseen moo xam hmm. Tiwaawoon fépp rek ba ci sunu mbokku catholique yi. Hmm. ñoo ngi leen ñaanal bu baax a baax yàlla ni saa borom may fan wu gudd réew mi yàlla fi yàlla fi jàmm. Serigne Cheikh bisimilah. macha allah euh, macha allah Serigne Mor Ndiaye mu Serigne falu kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax. xam naa rek damay ñëw nag euh, tàmbale question bi macha allah dañuy koy njëkkee rek si wàllum seet euh, sëñ bi macha allah euh, ku la xam-xam ne yàlla denk na la xam-xam ju bari si wàllum listixaar si wàllum seet ak seet bu mu mënti nekk sëñ bi lan mooy sa secret ak seet. waaw si maanaam dafa am loo xam ne. day toll foo xam ne dafa mat a leeral tuuti. Mhm. muy seet. Mhm. nit ñi léegi dañ ko bëgg def ay fawukaay. Mhm. te seet lu ñuy fawee. maanaam day lu wér. lu am. mais léegi nit ñi fu ne nga leen di dégg kenn ku ne ak seet ki ngay indi. te dinaa la wax tuuti gis nga lu ñu bëri ñi ngi naan ramlu ramlu. te ñu bëri xamuñu fu lu jugee. xam nga ramlu fan la jugee. fan la jugee am na rab bu ñu wax wel. rab bu ñuy wax wel. wel moom bala moo tuxu day ramlu ba pare. la ilaha illallah. day ramlu ba xam fa muy tuxu fa mu jëm baax na wala baaxut ba pare. Hmm. comprendre nga. Hmm. léegi nag. mo waral ñu wara bayyi xel bu baaxa baax set mais dama lay wax na la. Mm-hmm. set dama ci def lu ne. Mm-hmm. bu fekke da nga bëgg a seet hmm wala nga bëgg sot set ci job hmm wala nga bëgg set ci ramlu. Mm-hmm. amul lo xamanteni ba dañ ci deug la kuma ci dana la ci wax lo xamne nit musul ko wax ci illallah bi nga juddo ci sa nday ak ci sa ba fi nga tollu nit musul ko wax. kamil la yor alquran deug la duma wax mukk lu leer duma wax lu mukk lo xamne waaye li ma la mën a xamal daal mooy képp ku ma saa borom dogal. nga woo ma sama numéro di ma seetloo. jox ma sa tur ak sa turu yaay jox ma sa date de naissance. ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Mm. su ma ko ramloo Mm-hmm. incha allahu rabbi danaa la wax bi nga juddoo ba fi nga toll jafe-jafe bu mas a nekk ci yow. Mm-hmm. bu nekk ci kanam nag ak bu nekk ci ginnaaw. incha allahu rabbi bu neexee yàlla. macha allah incha allah. macha allah euh, macha allah Serigne Mor Ndiaye kaddu gi am na solo bu baax a baax a baax mais Serigne Mor am na mbir bu doy waar boo xamante ne sénégalais ñu ngi koy waxtaanee seen biir mën naa ne sax ñoo ma ne euh, demal nga jëli Serigne Mor parce que am na ndomba bu doy waar boo xamante ne euh, dégg naa ndomba gi boo ko takkee dalay may alal sëñ bi loolu doy na waar de ndomba buy may alal. waa xam nga ndomba googu. Mm-hmm. kafuma ci rewuma ci hmm moy ndomba gi mhm. li ma la mën a xamal moy ndomba ak alal la ilaha illallah. Mhm. ko tak mhm. ci katanu yalla da ngay am alal. ak ko mën doon ci aduna ki mooy ndomba alal. deug la li ko ëwee ko wax ku bint hmm dafa am ay téré ndaw yu mako botal hmm ki moy ndomba alal. kii ci kattanu yàlla ak mu baaxam foo mën a nekk ci adduna boo ko takkee incha allahu rabbi kenn munta téye nga am alal ci adduna la ilaha illallah kenn munta nga am alal am na fi mm. boromi alal yoo xam ne ak milliardaires yoo xam ne mm. billahi lisi la ilaha illa huwa maa leen ko jox te bu jugee seen digg mm. dootuñu yor dara mm-hmm. munoo nekk Europe amoo benn salaire un million wala deux millions am ci ay immeuble secret bi mi ngi nii ndomb gi képp ku ma ko jox mu nekk ci sa ndigg hmm. ci kàttanu yàllaa ko mbaxam kenn munta tee ta am alal ci adduna kii mooy ndomb alal hmm. kii liñ ci war a liggéey lépp ni mu war a ànd lépp ànd nag moom hmm. amul looy sangoo amul lenn da jël takk sa ndigg fukki fan la may nga weesu ko ci kàttanu yàllaa ko mbaxam li lay jox nag doo xam lu mu doon da ngay yaakaar ne junni da ngay nangoo gauche di nangoo droite kii mooy ndomb alal ku ko am ci sa adduna jërul ngay sonn. la ilaha illallah. barki Cheikh Ahmadou Bamba bi lay lisi la ilaha illa huwa ndomba gi ku ko am. dëgg la ci kattanu ak yàllaa ko mooy sa lépp dox na. dëgg la mooy gii ma yor. bëri na ñu ko xam bëri na ñu ko fi jël waaye ci kattanu yàlla bu yàlla di dimbalee ba nga am ko. incha allahu rabi mooy adduna noppeeti nga cee am jafe-jafe. dëgg yaay faj buumu gàcce waaye kenn dul faj sa buumu gàcce. kii mooy ndomba yii. lu ma ci liggéey sekere mag la maga ñam mm-hmm. mag ñu ñoko ko daan liggéey mm-hmm. yaa ngi dégg wax ju baax baax mm-hmm. am na ñoo xamanteni tay derbi hmm suma leen li ko liggéey ak lima ci def hmm ki boko takkee fukki fan ak juróom hmm la may da nga mo woné ma señ bi limay ba duñ ma jàpp parce que limay may nangu kat dafa mujj daf ma dépassé ci moy ndomba alal waaw ki boko ko amul amul sax nek fi di xalaat ak yoy deug la ki da ngay am xaalis force amul ma dem te ñew da ngay am xaalis force dafa ànd ak kaaraange lépp ngi ci biir ndomba gi dafa am kaaraange beneen bi ci topp mooy boo ko takkee da nga am alal kii doxut ci leen lu alal xaalis hmm. ki ay turu junne ki mbir laa ko liggéey yu ne ci biir hmm. li lay jox nag doo xam lu mu ay nit dañ lay gis sax yéen a yëkk see ay millions di la ko jox am am bi dalay yomb day yomb ci yow boo tibboon suuf toog sax toog suuf si day am barke hmm. lu ne da ciy judd bi mooy ndomba alal li ma ciy daj nag xam na ko kii dafa am bis yuñ koy liggéey am bis koy aw képp ku ci bëgg da nga koy teel a def commande. parce que du bis bu ne lañ koy liggéey. da am bis yuñ koy liggéey am bis yuñ koy aw. am bis yuñ koy yuñ koy sikkar. mais suñ ko sikkaree ba boole ko sa rawaan. ci kàttanu yàlla li lay jox doo xam lu mu doon. am na sax ñu ma koy jox ñu naan ma lii est-ce que du tabdir wala dara parce que ñun ni dañuy nangoo waaye loolu du moom. dëgg la ni sama yëfi bopp la di yëfi mag. ndax dafa internet bi loo ciy wax na nga ko xam. ndax loo wax rek ñu peraat ko. dëgg la moo tax lu may bëgg wax day doon lu leer. kii mooy ndomba alal gi. macha allah yéen ñi ci soxla woon ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax mooy ndomba gi. Mhm. am na solo euh, macha allah ndomb gi nag mën naa ne ndomb gu am solo la parce que mën naa ne sénégalais yi mbokk internet yi ñoo ma laajte nee ma boo demee Serigne Mor laaj ko ndomb buy maye alal te macha allah ndomb gi nag mën naa ne lu wér la xam naa ne moom ku ko daal di jëfandikoo rek incha allah di nga daal di sotti sëñ bi dañuy jàll suñu beneen question rek dañuy waxtaanee mbirum papier tuuti parce que papier euh, macha allah yaa ngi si def ay liggéey bu am solo mais bëggoon naa xam nit koo xamante ne bëgg na papier nu muy def. waa papier. ki ko bëgg nekk Europe. moo xam de jëlal sa kayit nga déposé ko. namat at. namat ñaari at. namat huit mois namat neuf mois. namat ñetti at. kayit dafa am rawaan. jëmmi kayit ci woon dafa am rawaan. yow ci sa jëmm damay xam sa tur xam sa sant xam sa turu yaay xam santam. xam numéro récépissé ba. Mm-hmm. bu fekkee xamoo numéro récépissé ba nga jox ma numéro date ba nga ko déposé woon. Mm-hmm. nit ñi damaa bëgg tamit ñi may woo nañ bàyyi xel loolu. ñi ma du jël ci appelé nañ ko bàyyi xel. Mm-hmm. mooy mbirum këyit dama ciy seet dama ciy ñaan gratuite. du ci laaj kenn dërëm. ma ci a laaj dërëm it génne nga donosi ma waaye wax ju ne am preuve. du neex. te si yax fii ba fii saa yoo laay dox. du ma dox ci ay waxantu du ma dox ci lu leerut. dama lay wax ne ñi nga xam damay na liggéeyal. ñu am ay këyit. Mhm. ma ñaane leen gratuite te ñu am ay këyit. Mhm. ñoom laa la bëgg a jox nga déglu leen bu baax am na ci ñoo xam ne dañoo indi ay témoin wax fii ñu dégg. Mhm. loolu laa bëgg ñu déggandoo ko ñun ñëpp te bàyyi ko xel bu baax a baax xam ne këyit man du ma ci caaxaan. këyit lu ma la ci wax rek lu leer naññ la du ma ci fay ak kenn benn dërëm. dëgg la loolu damaa bëgg ñu bàyyi ko xel bu baax a baax du ci fay ak kenn benn dërëm. mais damaa bëgg nga déglu seede yi nga xam ne. am na ci këyit. jumaa ji xam am na lu xew. ki Amérique la nekk. soobu yàlla léegi ci kanam dina am lu mu la yónnee. mais kay fu ma ne ci biir oto yeeg. dégg nga kii kii baax naa def yaa ngi si jàmm rek alhamdulilah sëñ Mor dégg naa loolu kontaan naa def maa ngi nii Allemagne woo nañ ma ne ma kay di génn na avocat woo na ma léegi dara dara du baax naa loolu kontaan naa loolu xam naka mu mbaa yaa ngi ci jàmm ça ah, yàlla kayit jot naa ci jot naa ci naa lépp maa ngi fii ba Espagne jot naa kayit yi. xam nga lii firnde la. macha allah bëgg lu may def fii. macha allah ma waxi ma joxe firnde. Mhm. ndax damay bëgg lu leer. Mhm. maanaam kayit lu ne laa ciy def. Mhm. déposé fu la neex. bu la mayee li ma lay jox su ma la ko joxee su ma ko mm-hmm. seetee ba pare bu laajee ay sarax mm-hmm. ñu def ko bu laajee ay càngat maay mm-hmm. liggéey càngat yi yónnee la ko te doo ma jox benn dërëm te gis nga boo ko xaajee sango ko yor say këyit ba la joxul këyit day faatu allahu akbar wala bu feebaree du wér moo tax dama koy xabtal ba dalay woo jox la say këyit Mhm. kenn mun ci dara loolu moom damaa yàgg a wax ne du ma ci laaj dërëm ndax loolu moo gën a néew ci li may def moo tax ma maye ko mhm. c'est gratuit gratuit laa ko def mhm. du ma ci ku la ci woo ne la mas naa koo jox dërëm na génn dénoncé ko man këyit du ma ci laaj dërëm li ma ci ci ay preuve du jeex lu ne am naa ko ci jox nañ ma ci lu ne may nañ ma ci lu ne këyit kon man lu ma ci ñun da ngay gis koo xam day nekk bitim réew def fa lu mat fukki at wala ñaar fukki at. mel ni kay téye ko fa te bu calculeel kooku tey nga sonn ci moom ba mu am ab ay kayit teraanga jam lay defal mu ëpp li nga ko doon laaj ci mbirum kayit mhm. moo tax mbirum kayit ma def ko gratuite du ma ci laaj kenn dërëm mhm. sëriñ si nag ñu ngi ciy laaj ñoom la engagé te képp ku yàlla booleel bañ déggante ci mhm. ma seet ko ba xam lan moo kale kayit bi ba ma wax la sarax bi nga génn ko bu fekkee laaj na ay cangaay ma jox la cangaay nga sangoo ko ci kàttanu yàlla ku mbaaxam kenn munta tee nga jot ci kayit yi xanaa nga faatu yow mi borom këyit yi waaye feeg yaa ngi dund mm. da nga ma woo ne ma sëñ Mor Ndiaye bi sëñ Fallou këyit yi jot nekk Sénégal aussi ñi nga xamante ne bëgg nañ tukki ba dem di ñaan visa euh, di yenn am te gis nañ yaa ngi jàppale ñu bëri te nag dégg naa nag nekk boo ko jàppal ba mu tukki doo ko bàyyi da koy topp ba mu am liggéey ba commencé am alal waaw allahu akbar xam nga loolu defal naa ko ñu bëri mm-hmm. tey su ma la ñaanalee ba nga am këyit fii ci dëkk bi ñu may la visa mhm. lu tax ma bàyyi la dafa am lu ma lay jox benn càngat mhm. da ngay wàcc ci réew mi laa la wax réew mi mhm. boo noppaloo ba pare da ngay am liggéey te boo xasee dugg ci place jox ma tur borom place ba tubaab ba jox ma turam boo xamee tur yaayam baax na boo ko xamul baax na nga jox ma sa tur ma boole ko liggéey loolu am fu ma la ko jox nga dugal ko fa ci kattanu yàlla yaay dem ba bàyyi wala nga retraité mais tubaab bi du la dàq hmm? barke Cheikh Ahmadou Bamba su ma la liggéey li ma liggéey pare nga jox ma turu tubaab ba jox ma sa tur man liggéey ci li ma ciy liggéey ci kattanu yàlla fa ma koy def mu fa dugalee mm. yow yaay toog ba retraité wala yaa naan ko damaa bëgg a bàyyi soo ko wax damaa bëgg a bàyyi du la mm. bàyyi nga dem te boo ko ne yokkal loolu moom mooy li leer te da ngay am alal da ngay am loolu dégg li ma la wax nit ki ngay liggéeyal loolu lañ mm. naan tasxiir eh, ko ci defee ba pare fi ma koy dugal su ma ko dama la mindeef mënatu laa jëlee foofa te beneen bi ci toppit mooy soo ne woon damay bàyyi tubaab bi du nangu te boo ko ne yokkal mu yokkal la lu may wax dama ci seet sama diggante ak yàlla. seet ci sama trail bàmmeel. Mhm. man alal fëkkuma mhm. ndax lu nit di am am naa ko. Mhm. kon lu may wax day doon lu leer damay ndax man sama diggante yàlla ma gënal ñëpp. ndax bis dana ñëw ñu takk ma dugal ma ci bàmmeel. te lépp lu ma fa lu leeru danaa ko waxaat kon lu may wax xam naa ko lu may defit xam naa ko. dëgg la macha allah. Mm. Euh, macha allah Serigne Mor Ndiaye mu Serigne fàllu kàddu gi am na solo bu baax a baax a dañuy waxtaanee ne mën naa ne euh, secret la si yow parce que ñu bëri bëgguñu euh, Sénégal yu bëri xam ko euh, parce que yaa ngi ci defee résultat yu am solo te bëgguñu nag yàqal leen muy wàllum nopp di nopp nit ku ñuul lan mooy secret bi. waaw loolu dafa am ci lu ma koy def. dafa am ñaari xob yoo xam ne góor la ak jigéen. dama fi nekk naan la raayal ak. takkal ak. bënn ak naanam ñaari xob laa yor yoo xam ne góor ak jigéen la garab ga nag du wax nu mu tudd. Mm-hmm. mais su ma ca taxawee ba liggéey ci li ma cee liggéey jël ñaari xob yi këppale leen ñoom ñaar gas ko suul war na ginnaaw dem mm-hmm. dama ne du def vingt quatre heures vingt du ko def te ndaw si woowu la nelal la ma doon wax loo ci wax mm-hmm. wala mu message la message yu ñàkk fayda boo ko tontoo boo delluwaate ci li nga bëggoon mën a la waaw allahu akbar te kenn du ko dindi li may def man rek maa ko mën a dindi sëñ bi loolu xam-xam bu ñuul la gis nga nopp mënoo liggéey lu leer ba mu jàpp xam-xam bu ñuul loo xam ne koy def léegi gis ko léegi ñëwal fii maa ko yor macha allah kenn du ne maa ngi nii waaye man sañ naa ne maa ngi nii da dama ci def ay résultats yu leer nañ te li ma la wax tubaab sax ci laa gën a soxor la ilaha illallah moo xam sinuwaa comme mën a doon gis nga yooyu ay caaxaan la mhm. rawaan yëpp benn la mhm. munoo ne kii nit ku ñuul la kii nit ku weex la munoo jàpp ku ñuul jàpp ku weex loolu loolu mooy waxi lan xanaa loolu mooy ay tappale caaxaan man laa la wax nit ku ñuul ak nit ku weex laa yamale mhm. ci kattanu yàlla buñ ci déggantee laa la wax loolu lepp xam-xam wala nga am soxna hmm. soxna si taxaw di la ñaan bat wala mu dem bañ a delsi hmm. woo ma hmm? barke cheikh ahmadou bamba bu yónni sa bu yónni pol woo ma ma liggéey ci lima ci liggey soxna si delsi wat ci bir kër gi tok bu fekke da lay ñaan baat kero lay dak sëñ bi xam-xam lu am lu wër la nan bayyi caaxaan ak tapale yi lu wër ni nit ci lu wër mo am ci alxuraan dafa am lo xamne bokuy liggey koy ci waslu ak na nit ki yëkëti alalam joxlako ko dina liggéeyaloo ci wàllu nopp wala leneen nga jël ko lekk say ginaar toog dee nag sa soxna yaakaar ne yaa ngi ci ndam niwoo ci ndam mucc ko adduna waaye muccu àlaxira dëgg la billaahi mm. wallaahi teelaahi ku ci bayu jël alal jàmb di lekk mm. te la nga koy liggéeyloo gisu ko mm. da xam ne jur ngay julli ngay woor jur ngay jàmm yàlla booy dee di dem sawar allahu akbar billaahi wal kitaabi man nag nit sama mbokkum jullit moom ma jëral fen kooku moom maa ko mag Mm-hmm. dépassé naa yooyu. Mm-hmm. man lépp lu ma lay wax lu ma lu ne ci man la lu ma man la lu ma xam la. Mm-hmm. gis nga sëriñ yi taxaw ne maa man lépp. waxuñu dëgg. na waar ab sëriñ du man lépp nañu waxante dëgg. lu jóg nga ne mën naa ko loolu lu mën a nekkee. doy na waar ñi nekk ci réew mi rek laay la ak ñi nekki bitim réew na nanu bàyyi xel li ñuy wax. nit complété maa man lépp amut. man mënuma lépp man. dëgg la mais lépp lu ma ne la mën naa ko. ci kattanu yàlla bu ci jëflantee nga gis résultat te damaa wax ne. Mhm. damay ñaan saa borom ne saa yi ma jullee maa ngi ñaan yàlla képp koo xam ne yaa ngi yaa ñëw ngi ci man. Mhm. jàpp naa sa aajo nar naa faju na damay ñaan yàlla ne ku aajo narta faju bu ma xam ba di ma woo. Mhm. te ñaan naa ko yàlla. nee naa ko nit koo xam ne mu ngi ñëw ci man te aajo narta faju lillahi wa rasuli yàlla bu ma xam ba di woo téléphone. amiin ndax man damaa ragal defet dëgg la damaa ragal defet sëñ bi. Mhm. macha allah waaw damaa ragal defet. macha allah euh, nit dëgg nga macha allah. Serigne Mor Ndiaye kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax. xam naa rek nañuy daal nag euh, jàll suñu beneen question rek nit ki nga xamante ne dafa nekk si place euh, di liggéey di daan dooleem di góor góorgóorlu di jëmbale famille am nga xamante ne à tout moment mën nañ ko dàkk mu bañ nag patron am wala kenn dàqu ko si bërëb bu muy liggéeyee kooku bu ñëw si yow noo koy dimbale ba mu toog si place bi bañ fay jógee. dañ koy seet. Mhm. parce que am na ñu nekk ci place. dafa mhm. liggéey ña fa mhm. ñooy dem def leen lu leen fa jëlee mais du doon patron bi. Mhm. patron bi la ñuy xabtal mu xëy dàq la. fekk ka bokkal di añ ak moom di reer ak moom di ndékkee moom. moo def loo xam ne yow da nga fay jugee. allahu akbar waaye buñ ko seetee ba xam ne lii lu loolu. da nga faa bëgg a toog képp. liñ lay liggéeyal buñ la ko liggéeyalee. loolu ci kàttanug yàlla ko xam munoo wax a wax a wax wax ba mu jëlee la fa. mun a am ci adduna. munoo wax a wax ba mu jëlee la fa ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. incha allahu rabbi macha allah waaw ah. am na solo eh, am na solo bu baax a baax a baax Serigne Mor Ndiaye eh, dañuy jàll nag suñu beneen question rek muy bayre su ma nee bayre eh, bayre bëri na façon bayre jigéen am na bayre kaaraange damaa jum bayre bayre place bayre yi bëri na façon daal sëñ bi ñëwul ma si wàllum bayre bu dee bayre place mm-hmm. lii laa lay jox mm-hmm. du xam nga xaal xaal waaw ñaata dooma ne ci biir xaal waaw mën naa ko compter xamoo ko xam nga. Hmm. lii laa lay jox. sëñ bi lii la. damay opéré xaal bi. Hmm. dugal ci benn téere bi. Hmm. bu fekkee mën ngaa gas nga gas ci digg place bi. nga suul ko fa. billaahi lesi laa ilaaha illaa huwa mbooloo mi danañ fa bari ba jaaxal la. lii mooy gàllaaju place boo bëggee ñu lay rang. dina wër jaay ma ji mel ni tulleeg mal lii laa lay jox. benn bi ngay jël dugal ko ci biir xaal bi. am na turu yàlla yoo ci sikkar ñu jël xaal bi koloot ko. Mm-hmm. gas am pax ci digg place bi. Mm-hmm. suul ko fa fekkee amoo pa foo mën a suul. Mm-hmm. nga wut potum ndagg. li ma wax waxi mag la potum ndagg mooy potu tomate yu mag yi xewoon. potum ndagg nga dugal ci xaal bi. wut ciment nga cimenté ko. xool foo ko teg foo ne bët du ci tege. kenn waru ko dégg nga wax bu baax a baax. ci kat nu yàlla daneen rang ba nga jàpp ne yow daa am lu daam loo daam lu xew. te kii rek ci laa koy liggéey. Hmm? kii mooy Bayra Palace. ku yor Palace mu ne tekk yëngu demut dikkut. Hmm. coow laa ngi nii ku weddi nga laaj Mame Ndiaye Savon. dëgg la ah Mame waaw maa ngi jéggul sax ci kàddu gi. waaye naruma koon a leeral. Hmm. ku weddi nga laaj maam Ndiaye Savon. Hmm. li koy doxal ngi fii man maa ko yor. allahu akbar. coow li bari na xeexe nañ ko gauche xeex ko droite. mais lim li xool li dox li koy doxal a ngi nii. Mame Ndiaye Savon. ma jox leen secret bi tey. macha lii lépp du ñu fi gone xam-xamu mag la. ba concurrence duñ rek. dégg li ma la wax hmm. kii. woo ma téléphone rek caaxaan jëlee wu ko fi de. dëgg la loolu leer nañ ko fiy jëlee. macha ndax man yoruma yi xam-xamu gone. Hmm. yoruma xam-xamu gone. macha allah réew mi biti réew. Hmm. saa yu ma tukkee bitim réew dañ ma koy laaj. dëgg la dañ may laaj lii. lu ma ci liggéey du doy. dëgg la lu ma ci liggéey du doy. fii bëri na fi ñoo fiy dégg ci ci réseaux sociaux yi ñu ñu tëll tëll ji bari. barke Cheikh Rafal bu ma génnee sama loxo ci ñoom ñu fay. ci yàlla. billaahi la si laa ilaaha illallaah xam nga maam Ndiaye wàcc na ay aéroport ñu téye ay bagages ah. lan moo tax ñu joxaat ko bagage loolu foofu rek laa ci yem. loolu question la foofu rek laa ci yem. sëñ bi foo jaar moom. dëgg la loolu foofu laa ciy yem. Ah. foofu rek laa ciy yem. Ah. xam nga maam Ndiaye génn na def dénoncé jooy ba sonn. dëgg la amul solution. Mm-hmm. ñu xëy. 24 heures mu génnaat. Mm-hmm. wat mm-hmm. ne jot naa ci. kii lu mu mënu amul course. man am na ko mënoon liggéeyal koo xam ne. dafa dem ba ci aéroport bi. Mauritanie la départ wàcc Libye. ñu nangu passeport am na ko dañ lay refourlé waat Sénégal. moo woo ma téléphone ci saa ma ne ko bul coupé. déglu ma tuuti li ma lay wax wax ko ba di ma lay wax ni dee ko wax. gis bi mu ko waxee ba pare. danoo jaawale waat dañ ko dañ koo jëlaat jëlaat beneen passeport bu am visa jox ko ko. moom mu dem ñu jël passeport am jox ko ñu war a keneen ku ñu war a refourlé waat. mu woo ma ne ma sëñ moom beneen passeport jàmbur ma fii. yàlla naa génn ci yoonu Sëñ Tuubaa allahu akbar barke xaadimul Mustafa moo tax dama la ñaan lu am la ñu ñi nañuy bàyyi caaxaan yi ñu nekkee mhm. ñaan lu am la lu wér la mhm. wala man boog lu wér laa ci yor dëgg la macha allah ah. am na solo euh, am na solo bu baax a baax a baax Serigne Mor Ndiaye moom nag mën naa ne mbirum bayre moom ak ku bëgg siiw ak koo xamante ne bëgg nga foo toll rek alal ji di ñëw si yow macha allah euh, moom mooy borom mbir yi macha allah. ñu daal di jàll nag euh, suñu beneen question rek dama bëgg ñu duggante ak yow si wàllu rab ak seytaane sëñ bi rab ba la duggee wala seytaane nan lay manifester si yow. waaw xam nga rab. Mhm. ak seytaane dañoo bokkul. Mhm. rab ngelaw la. lu mhm. loo xam ne dañ koy teg bët. loolu tamit faaw bàyyi ci xel. junne lañuy gis mais rab de su ko gis te serigne ci bare bare nag dañoo naafiq deug la ndax dañu ñëw naan rab bi tangam dafa am lo xamne boko taré ko tafli ci nopp nit day daan di tuddu ay tur lolou du xam-xam lolou kirama la kirama la kirama xam-xam nak faawu nu ñu xamne bokku bokkunu aw yoon kirama moy noy def ba nax nit ki hmm. est-ce que di nga baax baax hmm. fi nak lu leer fi nek ay tappale néew fi ay hmm. caaxaan néew fi ku bëgg caaxaan nga dem ci allah ba fi lu fi ne képp ko rab jàpp li ma lay jox soo soo soo ko suuroowee. Mhm. sangoo woo ko ci changé la la rab bi bay hmm? xanaa moo la dara tey. Mhm. man damay faj ku paralysé. koo xam ne ay tànkam doxatul li ma lay jox su ma la ko joxee jëlee say tànk nga wut paan sëpp ci say tànk am na bant bu ma lay jox mu taxaw ci kanamu paan bi ma wax na li ma lay wax nga tari ko su loolu jeexee boo jógee taxaw doxi sa soxla. allahu akbar. Hmm? billaahi wallaahi taalaahi soo soo jugee doxi sa soxla. amul ma dem te ñëw dëgg la. Mhm. gis nga jigéen ju tëw am doom. Mhm. xool li ma koy joxe ngi nii gis nga li gis nii. Mhm. pour jigéen ju tëw am doom la. lii da koy xooj ci ndox. bàyyi ko fa 30 minutes. nga jël ndox mi naan ko li ci nga diw ko sa naq. takk lii si sa ndigg séeg sa borom kër. ci guddi gi ngay jàpp ëmb. Hmm? billaahi wallaahi taala bu fekkee góor nga bëgg wala jigéen. dafa am secret boo ci def. Hmm. doo koo jox. Hmm. soo bëggee góor ma jox la góor soo bëggee jigéen it ma jox la jigéen. toogal fukki at amoo doom. Mhm. woo ma man. Hmm? yàlla bindul ku am doom. Hmm. loo gis ay gàllankoor la. Hmm. mais kii su ma ko jëlee jox la ko nga def ko ci ndox même pas trente minutes nga seppi téere bi jël ndox mi naan diw ci sam naq. jël li takk ko boo àndee sa borom kër am doom. amul ma dem te ñëw. sëñ bi jëkkër nag. jëkkër dama lay jox fuddën. fuddan bi dëgg la fuddan bi laa lay jox nga fuddan ko sa loxoom nday jor bi ngay nuyoo mhm. fukki fan ak juróom nga am jëkkër ku la njëkk seet si nag mooy sa jëkkër ah? boo ko daaxee saye liggéey ba yàqu na ku la njëkk a seet si mooy sa jëkkër ku la njëkk a seet si ni soxna laa bëgg demal mhm. boo ko dàqee du doo am jëkkër am na solo am na solo bu baax a baax a baax a baax mbirum jëkkëram ak mbiru am doom macha allah am nga si xam-xam ju bëri dañuy jàll suñu beneen question rek muy gàllaaju kër koo xamante ne bëgg na këram euh, yegg parce que yenn saa yi nit ki day tabax ay cinq ans six ans du gis kër gi am avancement sëñ bi gàllaaju kër nu muy demee. xam nga loolu moo koy waral. Hmm. lii mooy gàllaaju kër. Hmm. dafa am ñoo xam dañuy tabax kër ba pare. Hmm. duñ ci sax mën a dugg. am ñoo xam dañuy tabax mu xaaj. yoroon nañu ko àggale de mais du mën a àgg. du mën a yàgg am na ñoo xam dañuy jënd kër. ba pare daal di fay. seen alal daal di dem. duñ xam lu ko yóbbu. kii laa lay jox bu fekkee lu ñu def ci kër gi la ku ko defoon day faatu. Hmm? waaw bu fekkee daa am loo xam ne lu ñu def ci kër gi la ba kër gi mënut a yegg. Hmm. képp ku ko fa defoon. bala nga hmm. koo suul nag na a avertiser nit ñi. bu fekkee daa am lu ñu ci kattanu yàlla boo ko fa suulee kooko day faatu. te kër gi dana naataange dana am naataange. dana bëri njariñ dana bëri xéewal. mooy lii lii laa la jox a nga suul ko fa. lu fa nekkoon bu dee rab day tuxu dafa fanaan. bu dee junne dafa fanaan. am na kër yoo xam ne ñu ko fa dëkk faatu. waaw. ku fa dëkk faatu. ku fa dëkk da ngay faatu ci sensé. allahu akbar loolu koy dindi sëñ bi. lii laa lay jox. Hmm. mooy kër goo xam ne raba fo dëkk nga ñëw sa nga ñëw jënd ko te xamoo ko. dëgg la jëlal kii nga sul ko ci digg kër gi. Hmm. ci kàttanu yàlla lu fa nekkoon ci bos da koy formanté. allahu akbar mooy kii. mooy kii te kër gi bu fekkoon daa taxaw day àgg. Hmm? billaahi wallaahi taalaahi bu fekkoon kër gi daa taxawit day àgg. dëgg la kii du du yëfi gone. fii yëfi gone néew fi. dëgg la loolu laa bëgg ñu bàyyi xel bu baax a baax. dëgg loolu am na euh, macha allah Serigne Mor njaay kàddu gi am na solo bu baax a baax a baax ñu daal la jàll nag euh, suñu beneen question rek muy wàllum xëccoo maanaam xëccoo yi bëri na façon. Hmm. xëccoo suuf am na. xëccoo projet xam na euh, xëccoo ay post am na. Hmm. sëñ bi wàllum xëccoo yàlla lan si suñu borom may. maanaam loolu maa ngi koy liggéey ci béy wu ñuul. béy bu ñuul. kër njaayloo gii. Hmm. yaa ngi may dégg. am na ko fa amoon hectare yu bari. lébu yi ñëw di ko nangu. ba mu ñëwee fii jox ma ko. ma ne ko ci nu yàlla ndax am nga këyit leer mu ne waaw ma gëstu ko nag ba xam ne yaa ko moom. mu a ma waaw ma ne ko ci kattanu yàlla. képp ku ñëw di ko xëccoo yow day faatu. te loolu ci biir terrain ba lañ koy liggéey. béyu ñuul ngay am ma rendi ko jël bopp ba. Mm-hmm. bop be wala soxla solo ma yap bo solo ma jarba bop rek bop rek la soxla mm-hmm. liggéey jeul ma cay liggéey ñent pax lay doon mm-hmm. mu am ay tal yu ñuy tal ci ñent ñent ki ñu wër ko ñent pax yi suma ko liggéey pare ñu fay tal ba dem ci kattanu yalla ku ngawaat te lol da ngay fat allah akbar ku ci ñew diko ko tamit jam mum do do ci nek hmm? bu de loy xëccoo kep la kooku ci béyu ñun la koy liggéey waye béyu ma koy rendi nak suma ma koy rendi dafa am luma koy rendé am luma ma ci lëmas lolu lolu sekkare xam-xam bu ñul la deug la lepp dajé na fi deug la loolu xam-xam bu ñul la mm-hmm. loolu nañ ci bayyi xel bu baaxa baaxa baax bu fekke loy xëccoo kessela mm-hmm. indil ma béyu ñul mm-hmm. ma rend ko jël bobba liggey ci lama ci liggey mo xam place la mo xam da nga nek ci bëgg fenn nek fenn bëgg fa bëgg fa am ndam ak ministre yeeg dip fu mëna doon koku mom dama ci am ñu bare bare bare duma ci tuddur tur parce que ñaan dafa laaj secret sankatu neew bi ak médecin bi ak serigne yam ko jëflanté bul na diw la mais bari nañu am na koo bitim rew la jógee Amérique dorok la doon jaay te yàlla ñu dàq ko fu mu daw ñëw fii. mu ñëw ne ma dama bëgg a dellu mbubb laa ko liggéeyal mu sol ko dem àgg na cëpp mujj fen loolu ñu nekk bi am na mbubb yoo xam su ma la ko liggéeyee rek ko sol. Hmm. jëndal ko sa biir am te ni ci yow dara. Hmm? ko war wàllu takku der. nga xam ne bu la jàppee gàccal la. du hmm. mën ci yow fukki dërëm. man maa la wax lii. macha allah sëñ mbirum falu nag fallu fal nit fal doomu aadama. kii ci laay fale. laa ilaaha illallaah. lii bi génne nga li ma gëj a gis te lii ci laay ci laay folle lii. sëñ bi la. ki li ci nek lepp duma ko leral mais gis nga ki su la beugé fal. ce tour nga may jox boobu ak may wo téléphone def ko mail libre. ma jël ki tegale ko ko dendal ko ko. nga wax ma li nga bëgg ci bopam ki dama ko yoni muy dem di ñëw. billahi wallahi taala nekkal ci rew mi. nekkal ci bitim rew bëgg a falu. ki am na ñu ma koy liggéeyal sax. nga denc ko sa kër bu la nexé mbir mi waaw dama la koy liggéel nga tek ko fenn sa kër fo xamne kenn du ko laal am na xam ko defal ay boîte denc ko. allahu akbar. doo doo wàcc mbubb yéeg rek mooy lii ma yor nii dama ciy fal nag di ci folli moom dama ci yàq di ci defar mhm. ñu bëri nag dañ may laaj naan ma yat wi mais kii du sax génn ay mbir la léegi ma ko laaj a tax ma génne ko teg ko fii tey waaye kii di ñëw ne fi ba tàyyi te gisu ko sëñ bi lan mooy secret kii secret bi moom du ma ko leeral si internet bi parce que mhm. internet ñëpp ci toog mhm. kilifa yaa ngi ñëpp a am na ñoo xam ne boo joxee sa secret dañuy tàmbali maa ba la ñuy jël modifié ko kii du lu ndaw de xool ko bu baax baax a baax Mmh. li mu pétaaw yi boo ko xamut mënoo xam secret yat wi mmh. moo tax ma jox la benn côté bi macha allah am na solo waaw mooy yat wi am na solo euh, sëñ bi dama fay gis nag ay façon ndomba yu bari mmh. bëggoon naa xam rek ndomba yi euh, présentement lan lay njëriñ gàllaaj yi nga xamante ne moo nekk sa wet nii maanaam bii bu fekkee da liggéey ci place nga am ak jafe-jafe borom place bi wala nga xalaat nañ la faa bëgg a jëlee ràngoo ko ñëw fexe ba jàkkaarloog moom seetu bi na na tàpp ci kanamam gi coolo la fa lay hmm? a doon moo xam tubaab moo xam séeréel moo xam pël moo xam naar moo xam olof amal ak moom jafe nekk la faa jëlee hmm. xëyal gàlloo ko ñëw taxaw ci place bi sa contrat da dem ci la naan la ba jàkkaarloo na na jàkkaarloo seetu bi rek hmm. xool ko ci seetu bi na fexeel ba mu gis ko fii rek ci kattanu yàlla ku mbaaxam loola fa lay yem incha allahu rabbi loolu fa lay yem. Hmm. amul ma dem te ñëw. waaw hmm. ah. macha allah beneen no ba yeneen ndomba yi nag. waaw bu dee yii. Hmm. kii ci cat lay dox cat. wàllum cat. kii boo ko takkee. la dugg daal. kii boo ko takkee. ci kat nu yàlla mooy yàlla musal na la si cat. ak nga yaakaar muy tas. yaa ngi dégg loo yaakaar mu tas. munoo cee jot. wutal kii. ni la mel damay bañ nag ñu peraat ko. ni le mel takku ko. Hmm. te lo am dina taxaw sa loxo. Hmm. moo xam loxo bu bonni hmm. mo xam na ngay yaakaar muy tas. mo xam gàllankoor lu meuna don wutal ki sa ndig lay nek su fekke mënoo ko tak nak mën ko liggéeyal jaaro. wala ma liggéeyal ko lam. wala ma defal ko xoob. yaa mais am na ñoo xam tak be leni di gënal. mais ki bo xasse tak muslu nga ci loolu mom loola mom jottu nga ci allah cat. ak mirum du yaakaar dara muy tas wala wala lo am mu dem. wutal ki gis lu ma ci du doy te lii lépp ay commande jàmbar la yu war a dem bitim réew macha allah macha allah euh, yor lu wér rek defe naa ni moom moo am solo kii nag mooy Serigne Mor Ndiaye mu Serigne Fallou nekk borom xam-xam ju mag macha allah nekk borom baatin di liggéey li nga xamante ne moom la secret mag yi yoroon euh, ay jamono moom nag si naa ne mën naa ne si loolu lay yëngu ba léegi sëñ bi dañuy jàll nag mbirum faj su ma nee mbirum faj damay ñëw si mbirum kàttan góor yi nga xamante ne euh, dañoo nekk di mballu mballu bu bëri boo xamante ne dañoo dem ba mënuñu ko bàyyi macha allah am ngay secret yoo xamante ne dégg naa da koy bàyyi si saa si. lii laa lay jox lii bu fekkee da ngay mballu. Hmm. lii. Hmm. gis nga lii bu ma la ko joxee. Hmm. boo ko takkee sa ndigg ci saa doo dootoo laal sa awra. bu fekkee da ngaa néew kattan. néew kattan da ngaa néew kattan maanaam da ngay sëy yéeg rek wàcc. jëlal faski bu fekkee da ngay mballu jëlal faski te lii boo ko takkee ci yow bu amee fukki fan ak juróom tekkil sànni. fukki fan kattan dootoo ko ñàkk ci àdduna. ah li ma ci war a def lépp def naa ko ci. laa ilaaha illallaah kattan laa maanaam du ma la jox ngay naan. 15 jours 15 jours laa la may. Mhm. tekki lii nga sànni dootoo néew kattan. mag ñi daaw naan. dëgg la da nga liggéey ay mbir jox leen ko ñu takk ko rek am mhm. kattan. Mhm. lii ci laa koy liggéey kattan. bu fekkee da bëgg kattan kese. wala ngay fawee sa awra jëlal lii nga takku. ci kattanu yàlla loolu dooree day daa di dañ. incha allahu rabbi. macha allah bu neexee yàlla ak nañ koy fooyee boppam yëpp. kuy fooyee boppam lépp. macha allah am na solo bu baax a baax a baax sëñ bi daanaka nag waxtu bi jeex na lu duuf si nag bi mën naa ne xajul si cin bi dañuy waxtaanee rek question d' actualité muy nanet xale bi nga xamante ne dafa feebaroon ba Sénégalais yi dajale di dajale ay million et millions euh, nijaayam génn nag am ay mbir yoo xamante ne waxoon na ko. Hmm. mbir yi nag metti na loolu famille bi nga xamante ne mooy famille nanet lan nga jàngatee situation boobu noonu. coow loolu saa borom na ma ci lu bari. Hmm. coow loolu. Hmm. da nga billaahi wallaahi taalaahi damaa bëgg. Mhm. ñu déglu ma ñoom attentivement te déglu ma bu baax a baax. bisimilah nanu jël xale bi yóbbu ko mu faju ji. Mhm. xale bi moom dana mucc. dana am jàmm dana wér. amiin ndax man ñaanal naa ko loo xam ne incha allahu bi dana ko gis bu neexee yàlla suñu borom waaye ñoom seen bëpp am nañ ci ku tawat lool sax. Hmm? te buñ jugu ci moom day faatu ki ko war a faj ci penku bi la nekk. ci penku bi ci penku bi te coow lii suñ ko bàyyiwut dana am ko faatu ci ñoom. Hmm? billaahi wallaahi taalaahi buñ toppee internet bi déglu jëlal bi boppam nga bind ma la dana am kilifa gu faatu ci ñoom. allahu akbar. nan bàyyi coow li te toppatoo xale bi mu wér ci jàmm. ndax man loolu laa koy ñaanal. Hmm. te am na ci koo xam ne bu teewit bu coow li daanoo ci kawam day faatu te kilifa la. am na hmm. béjjaaw te mi ngi ci ñoom. allahu akbar. li ma la wax dara du ko dindi dara dogal ba wàcc na bu yàgg. suñu yaa ngi de. nit munut li ma la nit ko dindi yaa ngi sa yor nga say bët yoral di xool. bu hmm. coow li fayut laax dana am ko faatu ci ñoom. allahu akbar. ma wax dara du ko dindi dara. nan jeexal coow rek jàmm banaam buñ ko jeexul nag ci kàttanu yàlla ko mbaaxam. ko hmm. desete ci ñoom. Hmm? te xale moom dana mucc dana wér na ñëpp dala seet xel xale bi. wax nga lu rëy ci kàttanu yàlla ko mbaaxam dana wér. incha allahu rabbi. ndagam neex na yàlla. ndax lu ñuy wax it yàlla lañ ciy jiital. Mm-hmm. waaye coow lii bu takkut dana am ko faatu ci ñoom te kilifa la. allahu akbar na am na ko ci tawat nag waaye hôpital du ko faj na dem ci penku bi ki koy faj fa la ne sëriñ bu mu mooy sëriñam. Mm-hmm. li ma tax dara du ko dindi. dëgg la am na solo na solo. te it accident yi. Mm-hmm. ak nawet bi Touba. ak nawet bi nañ ci bàyyi xel. mais accident yi laa lay wax tuuti. bisimilah. te lii. Mm. bala ñu koy xotteeti wala ñu koy defar. nan woo borom xam-xam yi ñu saytu ko dafa am yoon yoo xam ne yoon dafa am dafa am ay borom. Mm-hmm. ay raba fa nekkoon wala ay junne. Mm-hmm. dëkk fa. Mm-hmm. doon fa suturloo ak lépp. nga ñëw ne ko xaalit jëlee leen fa. léegi nag mooy waral soog yi di bari. Bassirou Diomaye Faye nag laay d'annoncer. na wër rond-point yi. rond bu ne na wut nag ñu rey ko fa. def ko juróom-ñaar fukki saam. soog yi incha allahu rabbi dana dañ. waaye tant que amul. soog dana bari ren. allah akbar waaw ah. deret dana bari lu tuuru lool sax. Hmm? waaw ren mom deret dana bari lu tuuru sax bi nag président la république laay dénoncé mu def ko. li hmm. nga xam hmm. ne. ren nak nawet bi dana bax ndox mi dana bari. hmm loolu nit ñëpp baye xel. bopp bu ne na génn club ceeb. club ceeb waaw. bopp bu ne na club kilo ren ren lu way jion dana bax hmm bu nexé yalla suñu borom dana tawfexé féexe te dana bari ay ngeenel hmm incha allahu rabbi macha allah am na solo sëñ bi eh, waxtaan bi neexoon na loolu kàddu gi rafet na loolu da lay daal di bàyyi na nga tàggoo ñu la doon seetaan waaw ñoo ngi ñaanal réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla def fi naataange jafe-jafe bu waaye amit yàlla na ko saa boroom borom gi ak lu mën a doon moo xam ci réew mi moo xam bitim réew te réew mi nekk ak bitim réew lay lay wax lii mooy nanu ñaanal Serigne Cheikh Thioro Mbacke mu yàgg fi te wér ak Ousmane Sonko ak Basirou Diomaye Faye. Serigne Cheikh Thioro daa def acte bu rafet biir Touba. Mm-hmm. ndax mën nañ bi mu leen sonalee dafa wàcc ci biir xuus ak ay tànkam ci biir ndox mi. Mm-hmm. ne maa ngi bokk na xar wi mbégte sax waaye dafa am ñu ci loro mm-hmm. mooy kër yoo xam ne tuxu nañ génn nañ mu ànd ak ñoom wàcc ci biir ndox mi te bu ko neexoon toog ci oto ba. naan nii la demee naa la dem mais daa wàcc jël ay pomp joxe loolu dañ ko ci sant di ko ci gërëm. moom Cheikh Coro Mbacke. sant nañ ko ci bu baax gërëm ko ci lu mu mën ren bu ne yàlla na ko man ndax nit bu defee lu baax dañ koy wax réew mi tamit nanu teey te dal te xam ne réew mi dana neex. ah kii di Bassirou Diomaye Faye ak kii di Ousmane Sonko. buñ leen teewloo def leen ndànk réew mi lépp dana lijjanti ko. waaye nag mbir moo gis daam ab jubbanti. réew mi ñu fi newoon dañ koo yàq. ba mu yàqatoo ñu dem bàyyee ñu ko. mbir nag bu yàqoo ñu war koo defaraat dana laaj ab négganiku. nit sa xëyul am doom da amul 9 mois. jur ñu jàppal la ngénte mhm. kon loo gis dañuy def ndànk-ndànk mhm. bu ko defee rek saa borom dana dogal lépp dana sotti kon maa ngi ñaanal réew mi ñu fi nekk ñëpp yàlla na leen yàlla may jàmm Ablaye Wade dinañ ko ñaanal mu fu gudd fan day magam murit mhm. ak alaaji mën sóor nan ko ñaanal moom it saa borom may leen fan wu gudd ay mag lan te seen puso lañ yor di ñaw lu fekk mun nar a yàqu ñu defaraat ko kon mag ñi ci réew mi nañ leen ñaanal ñu yàgg fi te wér ñaanal Serigne Mountakha mi nga xam ne moo fi xalifab Serigne Touba ñaanal ko fan yu gudd bi ci topp mooy ñu waajal màggalu Tuubaa gi mm-hmm. ñu waajal ko ñun ñëpp te xam ne lu waay jàppoon mm-hmm. màggal gi taxaw na nan jublu ca loola mm-hmm. te xam ne farata la kon ñu ngi ñaanal réew mi di ñaanal ñëpp yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am tawféex ci daraja yonent bi ci barkeb Seydina Muhammad jërë ngeen jëf